الحمد لله الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ورحمة للعالمين وقدوة للعالمين وحجة على العباد أجمعين وجعل دينه ميسرا سمحا سهلا لا حرج فيه ولا مشقة ولا تضييق ولا تعسير واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له العلي القدير واشهد ان محمدا عبده ورسوله البشير النذير صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد عباد الله فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل كما أمره في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla suñu borom subhanahu wa taala moom mi yabal muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci diiney islaam di diiney dëgg mu nekk rahmatan lil aalamin mu yërmande ñeel mbindeef yépp mu di it royukaay bi ñu yàlla joxoñ ni nañu roy ci moom lépp luy xeetu jaamu yàlla mu di it ak lay ci bépp jaam ci diine gi nga xamante ni moom lañu indil muy diine islam di ko diine gu jàppandal diine gu léppam jàppandal ci jàmm bi ca nam ko war a defee maa jaala allahu fi diini min xaraj yàlla mu ni dafa lu mel ci diine lenn loo xamante ni lu jafe la lu ngeen war a mën a jëf ñi seede ni amul kenn ku nu war a jaamu ci dëgg ku dul yàlla subhanahu wa taala te waruñu koo bokkaale ak kenn di seede ni suñu sang muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mii sax doon ñu bégal ci lépp loo xamante ni mooy li ñuy yóbbu bi aljanna waaye tamit du ñu xupp ci lépp loo xamante ni moo ñuy jëmee ci yoonu safaan ma wal iyaazu billah yàlla ñu yàlla fayal ñu ko moom ak i saxaabaam ak képp ku topp ci njubam boobu penc di taxaw ñuy dénk suñu bokk mbokk yi leen dénk ragal yàlla subhanahu wa taala muy yàlla digal bi ñuy digal ni mooy xayra zaat muy yóbbal wa gën ci bépp jullit ci fa mën a nekk moo tax mu ni ci alquranul karim ya ayuha alladina amanu ay yéen ñi gëm na ngeen ma ragal te taqullaha xaqa tuqaati dëgg-dëgg ragal rek nag bu ñu faatu mukk lu mooy dañoo jébbal suñu bopp suñu borom subhanahu wa taala mbokk yi suñu xutbay tey bi idnillahi taala ñu ngi ko fas yéene amal ci jaamu yàlla bi rëy bi nekk suñu kanam muy alxajj yal na yàlla yombal suñu xojaaj yi nekk ci wàccaay yàlla yóbbu leen ci jàmm delloo si leen ci jàmm te nangul leen lépp luñ ko fa jaam suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ci lii di xajjatul wada ci ayaamul tashriq yi ba mu taxwee ni xam leen ni seen borom de kenn la da ngeen xam ni it yéen a bokk ci ngeen bàyyi ko muy aadama amul kenn ci yéen lu muy gënee moromam lu dul ci ragal yàlla ci taxawaay woowee la waxoon wax ji it ni yaa ayuha nnaas ay yéen nit ñi inna allaha farada alaykum alxajj fa xajju yàlla suñu boroom subhanahu wa taala de faratal na ci yéen ngeen aj kon na ngeen dem ajji boo demaatee ci xadisu abdullah ibn abbas radiallahu anhuma mu ngi wax ni tamit yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na na ngeen gaaw ngeen dem aji ji ci képp ku ko mën ndax kenn ci yéen xamul lan mooy li koy gaar mu bokk ci wax ji Seydina Ali waxoon ni man qadara alayhi alhajj fa tarakahu fala alayhi an yamuuta yahudiyan wala nasraniya mu ni képp koo xamante ni yàlla mën loo na la sart yëpp daje na ci yow ngir nga mën a dem aji te demoo aji nee na yow de bu la neexee sax nga dee ci lii di yahud wala nga dee doon nasaraan nga gis ni xadis yooyu yëpp dafay xirtal jaam bi ci bu ko mënee mu gaaw dem aji ji yal na yàlla yombal lii di alxajj nag bokk yi dafa bokk ci ruknun min arkaani al islaam al xamsati al azima dafa bokk ci lenn ci ponki islaam yu juróom yi muy ponk yi jibril alayhi salaam ñëwoon ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam di ko jàngal si lii di usul asalaasa mu bokkoon ci lam ko waxoon bi mu ne yonante bi sallallahu alayhi wa sallam xamal ma lan mooy ponk islaam bi yonante bi sallallahu alayhi wa sallam di lim daf ni ko wa tuhijjal bayt ak nga dem aji makka li man istataa ilayhi sabilan ci képp koo xamante ni mën na ko benn yoon képp koo xamante ne nag mbokk yi dafa nekk ci boobu wàccaay ngir dem makkatal mukarram laataa mu cay tàbbi ji faw dafa war a am loo xamante ne dafa war a xam laataa muy tàbbi ci jaamu yàlla bu màgg bu rëy boobu nga xamante ni benn yoon la ko yàlla farataal ci sa dund ngir jafe gi mu jafe ngir metti gi mu metti ngir it la muy laaj ca koom-koom aj dafa laaj alal laaj kattan laaj it xam-xam moo tax borom bi subhanahu wa taala farataal ko ci suñu dund benn yoon lii di aj ujaaj bi koy waajal ngir dem li mu war a njëkk ci wàccaayam mooy at tawbatu min al maasi wal xuruj min al madalim li ci njëkk moom mooy dafa war a tuub yeesalaat boppam ci digganteem ak borom subhanahu wa taala ci bàkkaar yi nga xamante ni mu ngi ko doon toggoo te amul ci kenn kum ko war a jéggulu wala ci kum ko war a tuub pour borom subhanahu wa taala ak it ñi nga xamante ni ñooy ñu ko wër ndax doomu aadama yi ca ñamuy jaamoo yàlla mooy ñu ko wër moo tax yàlla am ay xuquuq yoo xamante ko dox ci seen diggante ak yooyu noonu bokk na ci lii kii waaj ngir dem ci baytullahi alxaram mu rafetaatal diggante bi nga xamante ni moo dogoon ci digganteem ak ay mbokki dëkkandoom ci ay àq yu dox seeni diggante mu jéggalu ko comme ni ko borom bi subhanahu wa taala waxee ci alquran wa tuubu ila allahi jamian ayuha almuminuun laallakum tuflixuun na ngeen di tuub di dem ci yàlla yéen way gëm yi ngir yàlla suñu boroom yërëm leen ngeen bokk ci ñiy texe mu bokk ba tey ci li nga xamante ni kii wàcc baytullahi xaraam war na ko waajalee boppam mooy lépp lu muy fàggandiku mu tudd alal ndax jaamu yàlla la boo xamante ni alal dafa bokk ci li koy taxa li koy taxa mën mu ni li ngay fàggoo alal tamit nga fexe ba sa alal gi nekk alal gu gu lew ndaxte yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ci xadis ni inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba yàlla de ku laab la ku sell la dara du jëm ci moom nag lu dul du sell du nangul kenn nit lu dul la ngay jëf jëma jëmale ko ci moom lu sell la kon li ngay fàggandiku muy alal moo xam ja nga fi bàyyi sa njaboot wala ja nga yóbbu lépp utin wa dafa war a nekk utin wu dagan ngir yàlla mën laa nangul loolu di sa aj mu bokk ba tey ci wàccaay bi nga xamante ni kii dem aji ji war na ko waajalee boppam al istignaau amma fi aydi nnaas wa taafuf an sualihim mooy li ñu waxoon léegi ci dox ci digganteem ak mbokk jullitam yi baalut ñoom ay àq ngir la muy defe ji mu tudd jihaad te lu nekk mën na ko ca gaar mu bokk ba tey ci lim koy waajale ataqarrub ila allahi bima yurdihi min al aqwali wal a'mal fi tilka al mawaadic al sharifa nga fexe ba lépp looy def moo xam looy wax la wala looy jëf nga koy settantal di tàggat sa bopp ba say wax ak say jëf lépp di méngoo ji ak bërëb bu tedd bi nga xamante ni mooy fa nga jëm ca makkate mukarram wa yanbaghi lahu aydan an yusxiba fi safarihi al axyaar min ahli taati wa taqwa wal fiqh fi din mu bokk ba tey ci kii dem aji li mu war a waajale ajam mooy ñam war a àndal ca bërëb bu tedd ba ndaxte bu fekkente ne yow fa nga jëm ña nga fas yéene dem nekk li jël mooy ña nga xamante ni sa nekkin ak ñoom ca wax ci yëfu jàmbur lay doon mën nañ ko tuddee ay jëw wala ay waxi mboosoor nee na kooku noonu yelluwul ci yow ngay wàcc sax ngir ànd ak moom wala ngay bokk jeeg moom fa ngeen di dali ndax dafa bokk ci laaj yi nga xamante ni ci ñu bokk vol liñ leen di laaj mooy ana ñenn ñoo bëgg a bokk néeg am na ci chambre d'hôtel yoo xamante ni ñaar nit lay jël yi ñett yi ñeent ba juróom waaye bokk na ci li nga xamante ni yow miy dem aji ji war nga koo tànn ngir jaamu yàlla bu rëy ba ngay uti ji ñu nga war a bokkal néeg nekk ñoo xam te ni borom pas-pas yu sell lañ du ñu wax ci lu seen yoon nekkul du ñu dugg ci lu seen yoon nekkul te lañ lay xirtal rek mooy li ngeen di ut si mooy ay wax ci jëf yoo xamante ne lu yàlla nangu la ndax yàlla mu ni alxajju ashhurum maalumaat fa man farada fihinna alxajj fala rafasa wala fusuqa wala jidaala fi lxajj lam ca teg mooy wa maa tafalu min xayrin yaalamuhu allah lépp loo xamante ne jëf ngeen ko siiw rek xam leen ni yàlla xam na ko yàlla gis na ko yàlla na yàlla nangul suñu xujaaj yi yóbbu leen ci jàmm leen seen ci jàmm aqul ma sami'tum wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين sayidina wa xabibina muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain mbokk yi ginnaaw bi ñu santaate yàlla subhanahu wa taala jullit di salmal ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam ñu xam le ne nii di ajde dafa bokk ci ponk islam juróom yi mu bokk ci li borom subhanahu wa taala wax ni walillahi ala nnaasi xajjul bayt man istataa ilayhi sabila foofu la ko yàlla farataal ci bépp jullit mu ni war na ci bépp jullit mu dem aji màkka ci bu ko mënee benn yoon ci dundam yonente bi sallallahu alayhi wasallam waxaat ko ci xadis di firndeel waxu borom subhanahu wa taala ci xadisu abdullah ibn umar mu ni buniya al islam ala xamsin shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadu rasulullah wa iqami sala wa itaai zaka wa hajjul bayt wa sawmi ramadan kon boo noonu ko atteem moom farata ci bépp jullit alxajj nag li muy tekki mbokk yi mooy qasdu makka li amalin maxsuus fi zamanin muxas maxsuusa mooy dëgmal ci bërëb bi nga xamante ni mënoo defijee fenn aj fudul foofu muy makkatal mukarram te it la nga fay defi ji mu nekk xeetu jaamu yàlla yoo xamante ni moom rek nga fa mën a def la ngay def tudd aj wala mu tudd umra wal xikma في هذه تطهير النفس من آثار الذنوب لقوله عليه الصلاة والسلام من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه وخادم عليه الصلاة والسلام الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة mu bokk ci li tax borom bi subhanahu wa taala digle ko ndax yàlla lépp lu mu digle rek am na lu tax mu ni yonent saa salaam nu ni képp koo xamante ni dëgmal nga néeg woowu muy kaaba ga te ba nga demee defoo lenn luy jëm ci mooy yàlla lenn luy jur ay bàkkaar nee na yàlla dina la nangul sa aj gi nga seet wecc ci bàkkaar ba nga mel ni ba ngay soog gane ci àdduna ci sa wayjur bu jigéen muy waxaat moom alayhi salaatu wasalaam ba tey ba tey ci xikma gi mu ne képp ku yàlla nangul ajam kooku de lenn nekkul fayam lu dul dugal ko bi aljanna yàlla na ci yàlla defal mu bokk ci anwaaul manasik ci béréb yi nga xamante ni boo demee aji ji faw nga dem fa ngir la ngay def tudd umra wala mu tudd alxaj bi ci njëkk mooy ci manasik yi umra mufrida la ngay def mu tudd umray kese la ngay def mu tudd umray kese wala la ngay defe ji ci manasik bi loolu tudd xajjun mufrid doon aj kese boo xamante ni àndul ak umra ñetteel bi ci la ngay defe ji mu tudd xajj wa umratan maqrunaani muy umra aj ak ak aj boo lëkkale boo xamante ni kenn du ko séparé ñeenteel ba it ca la ngay defe ji mën na tudd umratan mutamattian biha ila al hajj umra goo xamante ni da nga koy def summeeku xaar ba aj ga jot nga soluwaat dem def ji aj kon umra la ak aj goo xam ne doo ko lëkkale yii mooy ñeent yi nga xamante ni mooy anwaaul manasik bu dee nag charte yi nga xamante ni moom la ñuy wax shurutul xajji yushtaratu li wujubil xajji ashurutul aatiya yii mooy li nga xamante ni mooy tax nga war a mën a dem aj benn bi mooy al islaam faw nga doon ab jullit ku dul jullit kooku aj charte luñ ko ci moom nekkul lu war ci moom ñaareel bi ci shurutul xajji mooy al aql faw nga ànd ak sam xel koo xam ne dafa feebar feebarum xel kooku yàlla togg ko dara bokk na ci ñett ñi nga xamante ni yonent saa salaam nee na ñooñu kenn du leen bindal bàkkaar mooy xale ba muy majeur ak koo xamante ne xelam dafa dem ak kuy nelaw ba muy yeewu al buluux ki nga xamante ni dafa majeur mooy ñetteel bi nga xamante ni mooy tax aj war la ndax bu fekkee da nga nekk ab jullit te amoo am te am am xel te majeuro goo kooku ba tey aj du la war kooku firnde gi mooy ki nga xamante ni dafa ajoon di ab xale kooku ki aj doon ab gone aj gi mën nañ ko nangu waaye aj dafa wàccagul ndax majeuragul foofu bu demee ba majeur dafay aji waat aj googu mooy nekk li nga xamante ni mooy la koy wàcc al istitaatu ci shurutul xaj yi mooy mën ko ndax moom la bon saatar wax ni liman istataa ci ki ko man sabilan benn yoon al istitaatu mooy nga am yóbbal gi alalu boo fi bàyyi bu dee ko am njaboot ga ak la la war a mën a yóbbu ba nga dem ba boo eggee doo fa tumuraan nga mën a dem ñëwaat ci wàllum alal ak it nga am kattan ngir mën koo def maanaam nga wér kattan nga nit ci na moom mooy wér ndax ki ñëwoon ni yonente bi sallallahu alayhi wasallam man de sama wayjur dafa mage ba pare yaram bi nekk yaram bu daif maanaam amul kàttan moom sax fa mu toog sax munu faa jóge dem feneen yonente bi sallallahu alayhi wasallam daf ni ko ajalal ko te yow nga umra kon al istitaatu dafay bokk ci liy tax charte bi mën a dal sa kaw ak ki nga xamante it dafa nekk jaam taba jaam di am ki nga xamante ni jaam la kooku su ajee ajam dañ ko nangu mais wàccagu ko faw mu nekk ab gor bu ko defee aj gi soog a nekk loo xamante ni lu mën a nekk ci moom la lii di aj nag mbokk yi li mu nekkee ponk ci ponk islam yi noonu la amee ay ponk yoo xame ni benn boo ci bàyyi sa aj gi matul mu bokk ci ponk yooyu al ihraamu dinañ ci ñëw après ci teqetal ci yeneen xutba mooy li ngay duggee ci aj gi loolu am na ay sunan am na ay waajibaat am na loo xamante ni loolu lañ ci digle ni faw loolu day daje pour que sa ihraam gi mën a nangu mën a mat loolu mooy gis njëkk ci ponk yi loolu su amul ci sag aj sag aj nangul wala hawla wala quwwata illa billah demoon nañ ci kasanteeg ñett ñoo xamante ni ay magi jëmm lañ ñu toog dafa ñu toog ca Medine la te Medine mbokk yi aj amu fa ziyaara moo fa am ñu dem ba ci masjidul Quba toog jóge fa dem war a dem Makka war a jaati bi'ru Ali fa ñu war a ihram dinañ ci ñëwaat ci lu gën a yaatu waaye nañu toogee ñoom ñett ñu ngi naan waa fii du Quba te foofu la ñu waree defe gi ihram buñ ko fa defalee seen aj du mat ñu jege leen ñu leen waa papa ngeen baal ñu fii de fii la ñu waree yéene aj yi ñu war a aj mu ni doom luy loolu wala xawla wala quwata illa billah luy loolu nam aj gi góor gi faw nga tànn ban façon aj nga war a aj mu ne ah boo ñuy tànnal kon nga wax ko la fa nekk ca ya nga war a tànn ñu daal ah kon danañ tànn bi xoolal ñooñu noonu buñ jugoon ci bërëb boobu rek daal di dugg ji màgg ba ba ñuy pare ci aj gi la ñuy def duñ ko xam te seen aj mënul nangu parce que al ihram dafa bokk ci ponk yi nga xamante ni soo ko deful sa aj du mat ñaareelu ponk bi mooy ab tawaaf mooy tawaaful ifaada loolu dinañ ci ñëw ci xeetu tawaaf yi am tawaaful ifaada dafa bokk ci arkaanul xaj moom it soo demee aj Makka te defoo tawaaf bi sa aj googu du nangu assaan yu mooy daw bi ngay daw diggante safa ak marwa daw la ñuy wax waaye am na dox am na ñukk bu dee ci góor ñi ay bu dee ci jigéen ñi dox rek moo fa am assaan yu bayna safa wal marwa loolu dinañ ci ñëw incha allah ci ay teqintal ñeenteel bi mooy al wuquf bi arafa mooy taxaw bi nga xamante ne nag di nga ko taxaw fee ci arafa mooy teew bi ngay teew ci arafa loolu it bu fekkente ni dem nga aji te demoo ci taxawaayu arafa boobu noonu sa aj tamit du nangu ndax dafa bokk ci ñeenteelu ponk bi nga xamante ni faw mu daje sa aj soog a mat bu dee ni nag al umra ñeent yi ñu wax benn dong moo ci dul bokk sa umra mat moom mooy taxawaayu arafa kon mën nga dem ci jamono ji nga umra la nga def umra lay tudd mais mënugul nekk aj lu doy lu dul arafa dafa jot lu doon arafa dafa jot moom la yoon saa sallam wax ne alxajju arafa kon mbokk yi dañuy yemale fii suñu xutba bi isnillahi taala ba yeneen yoon ñu ñëwaat ci yeneen yi nga xamante ni mooy sunnan yeeg waajibaat yeeg mahduraat ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب